Thank you ana eh, eh yow laay waxoon jugal. jugal nga taxaw fi mu maye ka. yow laay wax jugal xam nga kii yow ba yow laay waxal yow jom jom xamu ful la jugal. jugal nga taxaw fi daal duma ko sa yaram nooy. yow laay waxal jom. waaw la. jugal laa la. kii nga téye di dóor nii la ne yow. dama ne jug laa sama ma a menacé yow. jugal xam eh, jugal jugal bilaa boo jëlee fii ñu maye. yow yaa téye di dóor nii di bu doxee kii nii yéen kii man kii lu muy dégg. a dee mel ni dañ koo juróon mbaam mu muy dóor ah yow laa xëy say bagage daa ba nga dugg ci biir jël ko ñëw ñu dem ko. yaay may say sama say nga naan bu ñu ko jël sa bagage. bu ma fontoo mosoo maa yeb laa la wax maa la yar la ma nga toog nga toog may la nga sëy sëy laa waaye waxuma toroxal. dama nga jël say bagage ñëw fekk ma fii laa dañuy ñibbi da ngay ñibbi kër ga waaw kii lan moo doon li nga wax ci sama doom ndey jaaxal na ma trop kii man ak moom 10 ans ñu ngi ànd musa dóor sax gel waxumal ak jabaram li fi nga jëlee information bi jaaxal na ma. maman li cofeel wax dama koy dëggal ndax jom léegi mu yàgg ci kër gi. musuma gis mu yëkëti batam sax euh, mu jëm ci kaw jëmale ko ci soxnam ci di puissance kon ki la wax ne daf ko doon door waxul la am ñom ñaar bëggante gi ñu bëggante fo leen fekk ñi ngi wu ak ndax affinité bi ñu am motax sax livre lañ leen tuddé ndax kole ñàpp bi ñi def ki la wax lool mom amut dafa jaawale waye du puissance lañ doon door lool mom amut waaye yaa man kii musuma dóor dóor la ba ngay entré ji hôpital ngay musula dóor yaay man entré hôpital eh, xaw ma cofee xaw ma mbañeel soo amul woon duñ ma ko waaye yaay yow kan moo la wax sama jëkkër dala doon dóor loolu rek laa bëgg xam nga wax ma kan moo la ko wax. ki ma ko wax ci biir kër gii la nekk fi la yeewu. wóor na ma ni maman moo ko wax. moom la du kenn ku dul moom. maman sooda la. sooda sooda sooda ci kër gi. aywa. Akaane laa jógee tey moom yoon bi métti na trop. xam nga si laa ma yónni woon benn kóol yi ma dem di ko jëli. wallaay salaam. waaye lu fi xew tëj la wala la. yow ñoo toog. daa ma fàq ci taxi bi. lu may. waaw man dafa am benn kenn ku fi nekk ci kër gi dem ne man damay du suma jabar. yow ah? Ah, damay naan sangara. Mhm. ah lu ne laay def sama jabar. àdduna bi ñu nekk na surtout ma Sénégal da cee raw ñaar ñu sincère daal bëggante nii baraadu sa baraadu la ñuy bañ ba ñu fenal leen baa ñu tiiñal leen. ñu dund sincérité nii. bëgguñu ko de. man nag tey laa waaru ne béy bu jur paaka. yow yaa sañ a toog fii di wax li yow seytaane fi miste bii ma ñëw ci kër gi fekk la fii nga dama sama doom dañ koy dóor dañ koy xas di ko saaga du lekk du naan. Ah, tey daa métti de dëkkandoo daal tamit jàmbate dana waaw. waaw ah, yaa ngi toog. Ah, suñu kër gi la daa koor gi da xam na ne ni ñuy xëyee moom jot du am. waaw. waaw daa am ko doon seet. ah borom néeg bi daa doon seet. Ah, néeg bi nga doon seet. waaw. man de moom laa demoon duggali ji nii. ah. ndax démb moom jëkkër ji da koo jàpp dóor kóor dóor dóor dóor bu muy bëgg a dee. dóor maa la ko wax. ah. don ma def fi mu ne nii de buñ ma wowon legi na ma gaañu na dina du moko ko dur ne ko yore mbam ak saxat euro xëdd dal bañ jógee de xëdd xëdd si lañ dégg yu ñu ñu eh, daw way Samba fekk kanam gi nii yëpp bañ ya dañu yow li ngay wax est-ce que dëgg la yow ah deug la de yow kii jëkkëram ji baax ci wa faka la ñew yow est-ce que xam nga luma bokk ak gone gi yow jëkkër ji baaxul de yow ki li ma bokk mo moom na xam nga ko yow kii maa ko jur sama doom la. comme yaay yaayam. maa yaayam maa ko jur nga naan comme yaay yaayam. ban pièce. pièce d'identité. yow moom yow yabaate woo nga xam ne pièce d'identité yow ki jëkkëram ji ñëw kër ga di ko seet si guddeeg bëccëg di fa ñëw ñaan ko ñu may ko ci farataag suuna mu yor ko. Ah, moom de nga naan ma dóor ak lan. xam nga jëkkër ji nag day mandi. mandi. day mandi ba ne rek kii daal bu wooree ba guddi jot mu jàpp ko du tàndali. man feebar gi mu feebar sax moo tax ma dem duggali ko nii. Muhammadu Rasulullah. dóor na ko de gaañ na ko tamit. te yow ba gi yow yow yaay kan yow. man maay Sooda. Sooda yow li nga wax rëy na de. dëkkandoo ah. te nii la demee. nii la ah, yaa taxaw ñemee wax lii. ah muy def gémmiñam nag bobet kanamam ne kawas. yow nag yow yaa ñeme. Sooda la man na maa laal. Sooda yaa ma ne Sooda. non mu def kanam ne kawas def gémmiñ na bobet. may wax mu ne am nañu seytaane yow yaay seytaane pire bi yow mi yaay umul xibaar yow. kii kii kii kii kii waaye kii nan lañ ko a